gi de Les Échos xibaar naa ñu direction centrale des marchés génn na ab rapport waaye nag njombe yu mag moo ci am ndax lu toll ci cent douze milliards yoo xam ne ci marché gré à gré la ñu ko jaarale journal bi de Les Échos nee na scandale munta passé lii yéene kaay moom xëy duñu xibaar naan ñu njiitu di président Macky ma ngi fi nekk di bunduxatal Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru te jamono jooju nag Macky Sall ni dafa fàtte scandale ak njombe yi nga xam ne ñenn ci ay jege ñaaleem def nañ ko wax daf koo fàtte wala nag daf koy finital journal bi ne na njombe yi nga xam ne dunañu ko tudd ci Prodac ay milliards yi milliards yi milliards la bëri na ne tudd nañ leen ci te ba léegi ni Macky Sall yeyul yàbbe ci maanaam seen ginnaaw bandanga lu jëm ci wàllum poste ak girawal yeeg njombe yi nga xam ne gis nañu ko poste loolee tamit lu doy waar la Macky Sall wër ko lijjanti lijjanti wu ko ñëw fii di jéem a tongal Barthélemy Dias ndax ci diwaanu poste lu toll ci yoo xam ne ay bor la journal bi ñi nga xam ne ñooy waa IGE ak waa yoo xam ne doy na waar génn xeet doy war goo xam ne fu ko waaye natt daana ko fay passé te lii lépp Macky Sall li jëndiw ko yéen kaay gi de l'info nee na bu ñu waxante dëgg jamono ji guerre bi commencé na diggante doomu Sambol Dias bi ak njiitu réew mi di président Macky Sall ci lu jëm ci recrutement yi nga xam ne Barthélémy Dias def na ko yéen kaay gi de enquête xëy di sampablaaca nee na Barthélémy Dias ndax dafa fóote yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba tey jii dina tontu Macky Sall Birahim Seck bu Forum Civil nee bu dee nag lu jëm ci wàllum nomination yoo xam ne jaarul yoon loole nag Macky Sall moo ciy fa yéene kaay gi ñu xëy ne mooy premier adjoint maire bu Ndakaaru daal di xëy di ñu xibaar naan ñu a baax nga xam ne mooy élection député yi ndax daal dañuy déposer seen caution yéene kaay gi xëy di ñu xibaar moom tima naan ñu benn bokk yaakaar ñoom waxuma la caution waaye nag seeni parrainage la ñu daal di déposé gi ne na coalition Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal dañoo bëggoon a waaye nag ànd googee dafa fa la jee yéene kaay gi di Vox Populi nee na njombe am na ci benn bokk yaakaar ca diwaanu Linguère foofe nag ca département ba ñaari député rek lañ fa war a tànn te jamono ci am na lu toll sa juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay candidat kenn ku nekk bëgg naa nekk député yéene kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar li ñu collecté ci ay parrain bëri na loola benn million yu fekk ñetti téeméeri junni ci ay parrain yéene kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa ay dëmboo ca maire na ba mara détail ndax maire bu Bambey ci coalition Yewwi Askan Wi la nekkee maire jamono ji fekk na Macky Sall loolee moo tax Aïda Mbodj mer ba maara détaal yi nag war war rek la yéene kaay gii di libération xëy xibaar naan ñu activiste yi ji ñoo ngi leen di bund xatal bu baax a ndax am na ñaari maire yoo xam ne daanu porte plainte ay activiste maire bu Saint-Louis ak maire bu bi nee am na ñetti activiste yoo xam ne démb teg nañu leen loxo yéene kaay gi nee na am na ko ñuy wax Alioune Thiam moom jamono ji yóbbu nañ ko sa kasu ba nag yu porte plainte yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ak L'Observateur nee na njombe gu rëy a kiraa wali keeka tooxi doona gi nga xam ne moo am ca diwaanu Touba yi jégg na dayoo ay influenceur ak ay influenceuses yoo xam ne ñoo ngi leen di tudd ci ay njombe lu jëm ci wàllum sexe journal bi ne na sëyug ñaawteef lañ leen di def loo moo xam ay jigéen la ñu moo xam ay góor def loo leen lu ñaawa ñaawa ca diwaanu Touba yi fay leenub xaalis yéene kaay gi ne na Sénégal am na lu toll si ñeen fukk ñetti Sénégalais yoo xam ne ñoo ngi leen ciy tudd bu dee nag ci lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett cay ñoo ngi leen di tudd na ñaawteef googee bu dee na Côte d'Ivoire lu toll si juróom fukk ak juróom ñaara cay jigéen ñoo xam ne ñoo ngi leen di tudd si ñaawteef gi nga xam ne yéen a koy dégg ca diwaanu Dubaay bu dee ca diwaanu Cameroun lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaara jigéen ñoo xam ne ñoo ngi leen di tudd ci njomb yeeg ñaawteef yi nga xam ne moo am ca diwaanu Dubaay sénégalais yi ñu siy tudd yan sénégalais la ñu ay laaj la yéene kaay gi du l'observateur nee na njiitu réew mi di président Macky Sall na commandé na yu bare bare bare Macky Sall lan lay waajal en tout cas li am ba de Sall Macky Sall na nag leen militaire yoo xam ne takku na loola yéene kaay gi de Le Quotidien nee na mbiri a soxna sa saam yi nga xam ne ñoom lañ si tudd tey jii lañ leen di atte yéene kaay gi de la sa docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nen nag réew mii de Sénégal mënuñu fe nekk di wax mbirum émergence te nag lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ge maanaam lijjantiwuñu ko ndax mbir mi jamono ji dafa daal di tëgg tembe demul cee nga dikkul mbay laara wér-gi-yaram gi dafa sooxe ba maara détaale yéene kaay gi di réew mi Quotidien nee na mi nga xam ne jamono moo jiite woon réewum Guinée Conakry boo muy tuule ci kasu bi lay dee ko waral bokk na ci 2019 ak manifestation yi nga xam ne ñoo amoon gi nekk ña nga xam ne ñoo fa jot a ñàkk seen bakkan loole la ñu koy toppee yéen kaay kii délibération xëy dañu xibaar nan ñu ren ci soo muy tuulee aj màkk du yomb ndax billet bi xayma nañ ko ci ñeenti million nga lu toftal ñaari téeméeri junne yéen kaay gi di stade xëy dañu xibaar nan ñu ligue des champions final bi jamono ji xam nañu kan la Liverpool yi dajee la Real Madrid mi nga xam ne démb moo këpp carte gi ci match bi doon dox digganteem ak Manchester City ñooñee la waa Liverpool di dajee la journal bi nee na jamono ji nag